sëriñ Mountakha Cheikh Mouhamadou Bachir xalif général des mourides ñaan yàlla mu yàgg fi lool te am di nuyu itam rakkam jëwriñam ci yoonu murit di sunu sëriñ sëriñ Sidi Cheikh Abdou Lahad di nuyu itam ci turu kër sëriñ Amsatu yëpp ak turu njabootu Serigne Cheikh yëpp soxna May Muuna Cheikh Abdoul Ahad ak rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal jataay bi te ku xool ni ñu toogee sa yaram dana daw ndax kilifa yi fi doon wax ci bokkoo ak bennoo seen jataay bee firi na ko bu wóor ci ndigalul seen waajur ci tuuru jabootu sëriñ Cheikh nag ak ñi ma ko bokkal ñëpp sëriñ Amsatu sëriñ Saaliwu ak seeni rak ñu ngi sant nag suñu waajur woowu bu baax ndax moom kat mooy taawu Cheikh Abdoul Ahad bu jigéen ñu tudde ko soxna may kabee kon loolu li ma ci bëgg indi rek mooy tur kañ ko tuddee daf cay feeñ te soxna si loolu lu may indi la rek ñu ñu xam dayoo bi nga xamee ni waajuram mu tedd wi bi ñu koy indi fii mu liggéeyal ci yàlla ci sunu kër ki paaru waajur boobu wàcc na alxuraan at boobu lañ njëkk a mool téere sëñ jëmb siise yi soxna bokkoon na ci ci laa ko njëkk a gise man di xale bu ndaw soxna suy def waqaf ni ko nii ñëpp di defe waaye mu mel ne nag beneen mbir daf ci am ak beneen li ngeen def tey dafa suivi ko ci moom ndax bu ñu doon feet ñun lii ñun ñu dëkk ci kër gi di waa Mbaakol di kër suñu am satu day mel ni dañuy feetal soxna si cinquante ci kër Serigne Cheikh Dia yoo xam ne musta bougé loolu mbégte la ci ñun ñépp kon su ngeen ñëwee mu tombeeg juróom fukkeelu atam ci suñ kër baay ñun de suñ xol sedd na ci li ngeen def baax a baax a baax lu rëy rëy la ci ñun tam bi ci des rek te moom lay tëje mooy dafa am benn bis moom mii tey di soxna si seen dayre bii mu sos ko boole ci kër yi nga xam ne ñoom la ko gën a ñoo ko gën a jege kere bi ko waajuróom mu tedd doo yëgee soxna waam ami moom suñ seex colli la woon laaj ña ca bokk ñépp ba mu ko waxee sëriñ bi dafa joxaat soxna si ndigal la nga xam ne moom lañ doon teg ci ay cotisation sëriñ bi moo génne joxeel ko boppam kon lii da ngeen a baal daloo baat teg ca ndaal thème bi ngeen doon wax nag suñu laaj dafa koo dund jàngale ko ñett baat rek lay indi fii mu daan wax ci loolu danaan wax ne xam ba xam jeex xam yàllaa ci gën ndax boo xamee yàlla xam fa ngay jaar moom ngir ëllëg waaye mu ne man ba man jeexit ma nekk say bokk ca gën ndax yàlla leen boole te mu du ngeen tàggoo euh, amit ba am jeex gannaaw nit dafiy jóg nit bu amee njël am kër gannaaw day dee doy na loolu soxna si ñun de ci turu famille bi ñu ngi santaat bu baax Cheikh Abdou Lahad mi la indi woon fii nga liggéey fi la liggéey bu tedd bi liñ lay ñaanalal sa barke baay sa barke maam nga dem fekk ba fekkee njariñu sët yi nga xam ne juddooguñ ci barke Sëñ Tuubaa ñu ngi ñaan nag daje bii ñu yàgg koo teewe yàgg koo fekke li ñu fi ñaan ak li ñu dëgg na tëm yàlla yeggale ñu ci te lépp lu ca def mu dëppoo ngërëmu Cheikh Abdou Lahad wa rahmatullahi taala wa barakaatu ay murit xam ne sëñ Tuubaa rek lañu tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañu ko def